بالله وعلى ملة رسول من سجل قديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kaddu yi maa ngi koy dégtal ñi nga xamante ni bii leen jaboote moo xam ci réew mi ak wala bitim ak ñi nga ñoo di ay soppe te rafetlu sama doxin ak sama yëgin ci li leen di won li nga xam ne muy nekk ci man ma koy génne ñi koy rafetlu ñoo ñoo kaddu yi rek xale bi nga xam ne mooy Seydina Aliou te waxoon wax ji ma doon wax ci njiitu réew man dañ ma ko nettali te duma di déglu lu négatif man dama dañul kumpa lu positif rek laay nangoo dégg jamono bi mu koy wax fekk na tur bi ma diggoon Idrissa Seck fekk na ma boole ma boole leen ko moom Macky ma bëgg a wax ni ma leen ko boole ndax loolu alxames jële ca gannaaw la maa xam ne ñoom ñaar ndéem ñoom laa dégg ñu nekk ay kilifa ci politique bi kiy jiite day jiite parti dem ñoom ñaar képp laa dégg ñu prononcé jërëjëfe Serigne Touba ca Touba loolu moo tax turu Idriss Seck képp laa ko naroon a tuddee ndax lim ko mujjee wax ca Touba waaye bi ma déggee Serigne Mountakha wooyee Macky Mouhamadul Macky yu booba nag la daal di jël Idrissa dugal ko ca miim ga waaw ndax moom jiitu parti la jiituwul réew Macky moo jiitee réew mi comme sëñ bi nag wooyee na Macky Mouhamadul Macky yu ma ne kon léegi <laughs> tur yooyu dama koy dama leen koy partagé kon léegi damay jël Idi dugal ko ci miim gi lii kat laa defati waaw te boobu nguur si sax waxagul moo tax bi ma déggee ne nguur si wax na Seydina Aliou euh, waxuma ak moom direct ca booba bi ma ko waaye dama ni leen rek euh, na ko na ko jéggul ndax ñu bari dañoo xamul sama diggante ak Macky euh, maanaam maa ko soppal sama bopp te cofeel da dul caaxaan du caaxaan maa ko soppal sama bopp moo ne bi ma koy sopp de booba tàmbaleegul wax jërëjëf Serigne Touba ma koy dégg xanaa kon daa yokk nii la sama mbir demee manam duma gedd duma mer duma ki. waye nak nag jotuwul dara ak fi nga xamanteni bi fi ngay doone nit am kaddu yo xamanteni bi bu ko génnee dañuy xamni nit ko génne maki lu ngeen dégg ma ma prononcé ko jëmele ko ci mom donte da nuru lu ñang yi ñangul ci biir <laughs> ko tedd ci bopam moo ko jël def ci xol bi loolu luma ci man loolu it nako sama ñepp xam amna na ku may toñ ko xam ma jégué <laughs> Ababacar sadiq def ni ma def ni ma yi mom dal ko yabbu bañ fay bañ ku fa yabbu bañ fay mere maki man ko duma ci képp man ko mer ci boppam na kenn war ci jéem a def ndax dafa metti loolu nag njaboot gi laa koy leeral pour ñu xamee ko noonu. asalaamaaleykum man itam baaxal